Amadou a Ndiaye. jërë ngeen jëf taalibe Béthio Thioune yaa ngi bëgg ëppal nag lu ëpp ci yéen ñu xëyandool ne ñu démb amee nañu nit ñi huit ubbil observateur ci buntu 100 mètres demoon dajale fa nee na génn ci kaso bi baa ñoom ñu dugg ci biir yéen bi nañu newoon nañu sax bu ko jaree ñu dee wute ko moo leen di gënal toog di seetaan Cheikh Béthio Thioune di dee ci kaso bi journal bi nañu te nag Cheikh Béthio Thioune ak wér-gu-yaramam tiital nañu bari ndax a dox démb ca buntu ñi ngi bokk ci kaari Dakar dem dikki ba noppi nag nekk ci mbooloo mi di wër ak di rëbb journaliste yu groupe Futur Média yi kañ ko njëkk a gis di xàmmee ko mu di Mamadou Amar Ndione ma rajo Futur Média yabaloon foofee yéenekaay bi nañu ba ñu ko gisee ca la jàmm jeex Amar nañu ci journal bi buddutoon ak taxi ba ma daw dugg kon tey jii su ma amee sens dëgg hôpital ngeen may fekk populaire nañu cantaakon yi démb lu yàlla santaane wu rek ca la ñu yendu fitna dëgg la ñu nekke woon ca corniche ba di taali pëna ak di dogalay wata ak di leen di ñëw bi nañu bu ñu àppal nguur gi ngir ñu wax ci Béthio Thioune la Sénégal nañu cantaako ni démb dañoo meloon na gayndeg si bi ndigal li leen doomi Cheikh Béthio bi doon jox sax dégluwuñu ko woon far Le Quotidien na ko waxal wax ji bordel dëgg la ñu woon ci Ndakaaru Enquête moom la mu gis moo di la woon ca Thiès moom la taalibey Cheikh Béthio Thioune yi dàbbali yaa démb ca Ndakaaru ka ca naroon a gën a dëgg journal bi nañu moo di Mbaye Ndiaye ministre intérieur ndax ab cortège ba mu jaare ca corniche ba ca la ko taalibey yëgal bi nañu taalibe Béthio Thioune yi sotti nañu ko ci oto Mbaye Ndiaye bi bu dudoon ak waa BIP kon Mbaye way Mbaye Walfadjri nañu taalibe Béthio Thioune yi fu nekk la jafal ngir bëgg ñu bàyyi Cheikh Béthio Thioune muy ci Ndakaaru di ca Paris di ca Marseille fu ca nekk amal nañ fa ay manifeste direct info nañu fii ci Ndakaaru moom li fa xewoon moo di cantaakon yi yi dañu doon dukkat ci corniche bi réew mi quotidien ne ko gars taal Ndakaaru nga naan nee na moom Senghor ba gaynde yi di football ak Côte d'Ivoirien yi jëf joojee du jëfi sénégalais sénégalais bi ci ñu bëri joxar bi baaraamub tuuma di Alaaji Ousseynou Diouf nañu ci observateur fii ci Sénégal ñu bëri yàlla bu ndaw la ñu ko jàppee jàpp nañu Alioune Badiane libération mi ñu ko wax nañu Alioune Badiane mooy waa ji jiite Namora démb ba léegi ma nga ñu téye ca section recherche bu Ndakaaru ndax coowal suuf ci suuf ñun ñëpp ñu xooli lamb ji sunu lamb ne ñu ñu ñuy woowee ay VIP ci lamb ji saison bii di ñëw bu ñu moytuwul danañu a fi bëgg na ñukk ne yàq mu naqari dem xooli mbëri ndaw yi tëgg seeni combat VIP yooyee journal bi nañu ñoongi Modou Ndaw Tyson Modou Lo Eumeu Sène Balla Triple S doomi Double Less Gris Bordeaux Tapha taq ci rëpp Walfadjri Sport nañu VIP yooyee nekk ci lamb ji promoteur yi ñoo leen fi bëgg a bàyyi waaye ñoom ñoo ngi ci seen bopp ku ca nekk ci ñoom am nga sa programme ki am programme bu mu xamul fan la koy tànte muy xale bu jigéen bi nekk ci Walfadjri Grand Place ubbi leen journal bi ba bi 11 ans di fukkeet ak benn